di dellu si ci liñ waxoon si njalbin bi mooy li ñu waxoon ne daanaka mënoon nañ ci bañ a teew ndax xam nañ ni kenn ku nekk li nga defoon daaw lu ko raw ngay def lu nga def lu toll ni moom baa lu ko raw ngir yéene pas-pas ñu dégloo wax yépp nag kenn ku nekk li nga seede ak ni nga waxee firndeel nanu ni lanu yaakaaroon jort ko loolaay leer loolu mooy kenn ku nekk yéene ja nga amul ak pas-pas ba da nga koo dolli waaye delloo ci dara euh, kon nag li ci des rek mooy ñu seetlu leen la trois di talaata ci kër Cheikh Abdou Lahad xool yi ñu tënkoon fii yépp nag ba xam lu ci ne fu ci toll euh, bu nu àggee nit sëriñ bi mi ngi nuy xaar incha allah euh, ni jataay bi tëdd lépp danañ ci wax ak moom leeral ko pas-pas bi ak yéen di ngeen ci am ak taxawaay su ngeen di ñëw def réunion évaluation bi fa ngeen koy fekk lu ci ne dana xam fi ñu ci toll balaa bis ba léegi nag euh, gouverneur ñu beral la sa cant bopp bu wér ci taxawaay yaa ngi ñu ko bokkal ñépp euh, mbirum presse bi ñu sant nit ndax seen yéene ju rëy ak seen pas bi nga xam ne ñu ngi koy def at mu jot euh, ci seen diggante ak Cheikh Abdou Lahad ngir marque bu mu leen ñu ci ëpp jamonoom la leen yàlla feeñal daal euh, léegi nag wàllu euh, li ñuy def ci màggal bi ci documentaire yi nga tudd ak plateau yi ak yëpp commission culturelle bi di Abdoulahat Diakhaté sëñ Abdoulahat Bousso ñu teewal leen fi ñoom danañ déplacé wu jokkoo ak ñoom